ba Sénégal Actu Sonko lii mu def mbirum populisme képp la du samay kàddu kàddu yi ki nga xamante ni moo di Alassane Ndao la bokk si ñi nga xamante ni ñoo di PTP ginnaaw bi nga xamante ni nag jël nañ dogal dakkal lépp loo xamante ni wàllum foncier la wàllum tabax fi nga xamante moo di si yenn bërëb yi corniche bu Ndakaaru fi nga xamante moo di si géejuwaay ni mel benn yoon si li nga xamante moo di état bu yees bii lañ doon xaar si ñoom mu daal fay li nga moo di bor bu ñuy ameel waaye loolee nag mën nañ ko ba noppi nag daal di dakkal li nga xamante moo di suñu liggéey te loolee nag mën nañ ne buñ ko defee nag ñoom ñii nag dañuy gàllankoor seen liggéey ñoom tamit ndax nag li a am waaye nag mën nañ ne dañuy ñàkk ay junni junneen maanaam ñoo ñoo xamante ni daal dañuy daal di perte li nga xamante moo di seen xëy te loole nag mën nañ ne waroon nañ ko moytu bu baax a a baax si li nga xamante ni moo bu bees bi kon ki nga xamante moo di Ousmane Sonko daal mu def nii ñaawlu nañ ko ba fa ñaawlu yem te lii nag mën nañ ne du lenn lu dul mbirum populisme képp la lool rek lañ ko mën a waxee ki nga xamante ni moo wax lu ni mel nag di ki nga xamante ni moo di Alassane Ndao